laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha

mu nekk fondation boo xam ne dafa juddu ci biir naf ju xadaayal xaaj léegi nag dañu ne yoroon tout ce qui naa maanaam collation léegi ma bàyyi mbokk taalibe bi ak Saliou Fall mu leeral ci Khelcom 313. ñu ngi jaar ñëpp mu nuyoo nuyoo bu sell nuyoo bi ñu koy njëkkee ci nga xamante ne nii mooy suñu njiit muy Serigne Mourtada ibnu Serigne Saliou Mbacké ñi nga xamante ne nii mooy suñu yaakaaru tey ëllëg. di ko ziar bu baax di ko jox wàccu waayam di ko ñaanal moom Mbacke Balla mu yàgg fi loolu te wér ba naal bi nga xamante ne nii moom lay moom lay naal pour liggéeyal ko maamam bu tedd bi bu tedd bi mu àggale ko ci jàmm ak salaam waaw Khelcom 313 nag dafa doon kuréel bu nga xamante ne nii maanaam ñi nga xamante ni ñoo nekk biir kër sëñ Murtada Saliou te it nag di roy ci maam Cheikh Rafal ñoo nekk ci di doxee maanaam amaana sax doxin bi maam Cheikh Fall daan doxee ñun def mënatu koo doxee waaye daal maanaam ñu ko ñu koy jéem waaw ñu koy jéem te nekk ci tànk bi di ci dox 313 nag mu don kuréel bu nga xamante ne nii léegi nekkatul sax national léegi international la waaw ndax boo seetloo am na ay Allemagne Italie bàyyi France même États-Unis sax am na ñoo xamante ni ay éléments 313 lañu waaw 313 nag nekk loo xamante ni fondation la. nekk ci biir nëx ju xadaayil aj dooleel nëx ju xadaayil aj ak di ko yokk doole nekk ci ginnaawam waaw ñu nag am ci ndigalu Serigne bi Serigne Mourtada moom Serigne Saliou jox ñu ci ndigal waaw ba nag kuréel gi duñ ci def lenn lu nga xamante ne nii waxtaanuñ ci ak Serigne Mourtada moom Serigne Saliou waaw waaw ak daayira national bi nga xamante ne nii ñoom ñooy suñuy njiit waaw nag di santaat nag bu baax ak di ñaanalaat mbooloo mi yëpp képp nga xamante ni ñëw nga ci tool yi aajo boo fi indi yàlla na ko suñu borom saafara barkeb Serigne Saliou waaw te suuf si mën na ko suuf si attan na ko lu ko waaye sas tamit mu yanu ko yàlla na ko ku tedd ki defal ñun ñëpp barkeb Serigne Saliou waaw waaw ndax loolu noonu mooy ndigal li nga xamante ni mooy moom ndigal li nga xamante moom laa wax ne moom lañ jot waaw ndax lii dafa doon loo xamante ni nii depuis bi ñu nekkee tout temps dañ daan ñëw ci daara yi waaw di fi yi ku tedd ki du ñu fi indi ñu fi vacances yi ñu dem ba màgg nag gis ne fu mu toll ni am na ñu nga xamante ni ni gars yi dañ ko gaa yëpp Baye Fall yëpp gisante waaw bi ñu gisantee génnee lii ñëw na dañ koy jëfal ci kii te ñun fas yéene ñoo yem ci loolu kase bëgg nañ suñu suñu suñu suñu ambition leen la mooy dem ba nga xamante ne nii teel daara yi suñu bopp waaw muy daara yi njàpp te duñu yem sax ci Xelcom kese dañuy yem ci njàpp ndal ba ay ngaaboog yooyu noonu loolu nga xamante ne nii mooy liggéey liggéeyu suñu Moutalla Sall ci daara loolu mooy suñu objectif te incha am nañ yaqin la ilaha illallah